loo xam te non non dootu fi amati macha allah loolu nag boo ko bëggee demal sa TV télé bu mag bi. salaamaaleykum. jàppal jàppal asalaamaaleykum waa Ndéla waaw waay Ndéla kontaan nañu de tubaarkàlla maa la gën a kontaan nañu macha allah laf jàpp sama xarit bu yàgg macha allah nit ku baax ki waaw dama ne lu yàgg lu ne dëgg la lay ñaanal yàlla rek macha allah macha allah tubaarkàlla non de waa tey fu cere ji di xewe na ah tey cere ji ngi lay xewe ci taalibe Serigne Fallou bi déggal li déggal li déggal li xalaas lakk sa picc xew waa déggal li <laughs> yaa la macha allah salaamaaleykum Ndella macha allah ñu ñëw fekk si la fi. ci sa kër Grand Yoff. dëgg la macha allah tabarakallah nag yàlla boole la ak ñun ngay mokk di mag di xarit ba noppi nag. Mhm. am ndomba tànk tubaari kàlla macha allah ci réew mi. dëgg la ndax kullu kuy taasukat yow yaay présidentam mhm. yàlla boole la ak ñoom tey nga fas yéene cere. Ndella nu mu nar a demee tey cere ci. yee aji ngoy. Mm. tubaarkàlla allah. Mm. lu dagg lu ne ma lay fekki. dëgg la te nii nga def nii. waaw man dama cee kontaan daf maa neex. déggal lii man xamal naa ne leen daje maa. maa la wax lii lii tey dañoo fas yéenee cere. Hmm. delloo la woon fa woon. waaw waaw xam nga rek tubarkalla allah. Hmm. cere bi léegi. tubaab bi dañ koo yàq. daal waaw ay olof la du di ay bawal bawal. dëgg la dinañ cere ba cere fi dara nga ni ma. maa la yaa ji koy. ah kon nag fu mu jëm nii. Ah, foofu. aca bokkoon aca <laughs> waaye ñu dem marché waaw leket nga bokk de waaw man lii laa gëj a gis gëj naa koo gis de tubaari kàlla macha allah ah? kon nag tubaar kàlla ñu dem marché rek waaw ñu dem marché rek marché rek def la woon fa woon amin amin yaa kay waaw loolu am de man ko loolu daal am ànd nga ànd ak eh, télévision bu mag bi nag 7TV nga àndal macha allah. 7TV laa àndal. waaw télé bi xew ci jamono. waaw waaw tubaarkalla bi fësal gaa yi. Hmm. dama ni. Hmm. fii ndaanaan dootu fi làqootoo. loolu am. maa la lii maa la lii. la Ndéla. waaw marché bi léegi nii. ki ma seet si tubaarkàlla jóge nga ci ndugg mi waaw jóge naa ci ndugg mi ngoy marché bi métti lépp léegi nga jëm ci ci ndawal waaw ci ndawal nga saaf sama yu sew. sama carotte. waaw tubaarkalla sama pataas. ak sama nawe dama koy dooreel rek. dooreel ko ba mu xonq waaw. tubaarkàlla macha allah waaw waaw. maa wax lii. lii de tey dina ala daw. maa la ko wax. macha allah. tubaarkàlla ku la jàngal cere. yee tubaarkàlla xam nga ñu lay bawal bawal lañu. Mhm. ma dëkk ak sama mag nag fas seen ñang nga xam ne moom ci cere rek lay dox. nga ni ma barke Serigne Fallou. tubaarkàlla bu la cere tam xarit. ndeysaan nga daanu. macha ñu lay bawal bawal lan teg ay séeréer ah, ah da nga war a mën a togg may mën a Ndour Faye nga. mbokk may mën a Ndour Faye laa. macha allah macha allah tabaarkalla. macha allah. ah ji mën nga cee laalal dara de xanaa ci rosi bi. ah bi doo laal dara ñu dégg. ah xanaa nag tabaarkalla macha allah bu ma seppee lii. ana bay tama. ba dugal sama karo. sama sama ñaam bi. waaw war cee mën a laal de. ah waaw waaw. ndaay daay di daa. jéggal boole ci. Mm. damaa xëy nag. suba teel. waaw yow li nga sol kay man moo ma jaaxal. ah waaw baax da ngaa suba ñu ko wàdde. waaw la ma njëkk ca marché ba waaw. tubaarkàlla sama taaw bi daba juuf. Ah. yaa faatu couture moo ma ko solal. ah moom lu muy xaar ci aji ngoy caali. ñu wax mu ni nii mu ne ma mu ne ma li ngay toggee maa la koy jox. déggal lii yaa faatu couture foo fa toj. tubaarkàlla dina dina ma solal ñaari couleur ya garaaw. dina la solal. ñaari couleur ya garaaw. nee naa ko préparé lal aji ngoy. aji ngoy caali waaw. waaw waaw. lu am maanaa. ciin déggal loolu. maa la wax lii tubaarkaal lii de dooree na moom. waaw waaw. <laughs> dégg benn taasukat. waaw. bu taasu nekk cere puso. waaw ko togg wal ko. loolu Adja Fall ko waxoon moom ko du la jaaxal waaw waaw loolu moom loolu moom. loolu cere puso am la wala taasu la noonu rek. Adja Fall ko taasu woon waaye mm. cere puso dina doy waar de. dina doy waar ah, puso mooñ ko. ku ko togg wal ko. mooñ ko du la jaaxal nee na du la jaaxal. du ko jaaxal parce que yow moom moom mi ko dem wali. ah ba teg. ah, ah mooñ ko du ko jaaxal dina garaaw de. Adja Fall dafa réew. <laughs> kenn du Adja Fall. dafa réew. tey jii am émission mu ngi doon ñëw. ndeysaan ndeysaan. waaw ñaam bi jilaay rus dooreel moytu kook li nga saaf ba pare cay lii cerey géwél dara du yomb de waaw eh. ah dama dund bi ah waaw yow bàyyi tama ñëwal jege ma tuuti ñëwal jege ma taasukat yi toog <laughs> tubaarikàlla jàppa xam ne moom moom boroom naanaa war nga suukar. waaw Saalum bii nga ku ko xamul dégg nga ko doomu gitaa meer la. maa wax ak pour meere Ndiaye. moom sama bàyyee di jaayam. lu ñuy may tubaarikàlla fas seen a ngi nii. mooy borom ceeb yi kii nag la ñuy wax tubaarikàlla. Uh-huh. waaw tubaarikàlla Cheikh. Cheikh Fall Dieng ah mbay waa Cheikh non non nar a def nii. tubaarikàlla waaw waaw. <laughs> waaw waaw eh! namatuma sàmma ndox ah! ma ne namatuma ndox tubaarkàlla sama waaj <laughs> ndeysaan lu ma jàmb ndeysaan yaay di jaayam ànd jàmb ko waaw waaw waaw waaw tubaarkàlla lu yàgg lu ne dëgg la tubaarkàlla Cheikh Fall Dieng ngi noonu taaliba borom ndigal laf mm. cat waaw waaw waaw waaw bu ma ceree mu neex lool ko defe ngoy ngoy ay sama sang lii la yàlla ci biir yàpp xar yi ñu roof ko diigal ko lii la yàlla def xolal ginaar yi ñu ko diigal ko lii la yàlla yow cereel cereel cereel boobu neex la yow ku lay tere satub ngoñ bi satub ngoñ bi moom dafay cere sama sang bi toog ñun dunu cere léexee ñun daanuy cere <laughs> waa Sénégal ñun daanuy cere sunu présidente bi xoolal bot ñu ba mu neex nu tëddeeful déeli bot ji cey sama waa ji te deful deli fukki at xoolal ci mim réew te defoo deli maa xam nga daanuy ceere ndeele xalaas daanuy ceere ngoy man dunu ceere dan koy ceere ba mu neex ñun ñun ku nuy teere xalaas aye ci mim réew ñun dunu bége waa Sénégal daanuy ceere kenn du ma tere dama ne daje wóor bala nga xam sa waay nga dem ba këram waaye daje wóorul Mor Thiam ku mu def na ca fulaam waaye Mor Thiam ku mu àndal war na la ngoram Mor Thiam waaye sama doom bi ba leen naar bi xoromam man de daje naa moom xoromam Aja Njaay sama waa jéem a booleeg moor moor ba muy tut la ñëw ca kër ga lii la yam faa def ni bari jam xoolal fa njàcce lii laa ko nawe ni ko moor jaam famille bi bu bokk ñëpp la teeral moor jaam daal leen yi béegal moor jaam daal leen yi waayal moor jaam daal leen yi béegal <laughs> léegi nooy def léegi. yee léegi nag maa ngi commencé saaf sama ganaar. waaw ak sama yàpp rek. kañ koo dugal noonu waaw. bisimilah rahmaani rahiim ak sëñ Fallou. suuf suuf. Fallou Awa amee ñu maree ma kunte jax réew ba. kooku lu may commencé moom laay commencé lu may mujj jëm laay mujj jëm sa buri. waaw jooju. Basirou Guèye mu Adja Ban Guèye mooy Cheikh Rama Ndiaye Bas Guèye Moustapha looy ñaar si kanam loo sëlëm sëlëm du dey waaw loolu am de mooy chéri soxna mbéykan sama wax ji kay macha allah. tubaarkàlla saaf naa sama ganaar ba pare. léegi nag sama yàpp laa saaf nii ba mu xonq. ma jël sama tamaate rek rëbbal ci. yaa ilaha illallah mbay. lii <laughs> de dina toj yaa ma xool. maa la wax lii. yaa ilaha illallah ñun taalibe Sëriñ Fallu la. loolu am de maa ci fay sama borom kër. waaw tubaarkaale dama ko ci yàkkal. soo xamoon ni ma mel. nin ma taamoo. nin ma seetloo. ak jàmm ji ci man. ak yar gi ci man. kay ma jox la suma teraanga àdduna tuute jàpp. sama nekk ngeen di ma fëgg eh bien ça c'est mu doon sonal ngeen ma lool ne la soo xamoon ni mel nin taamoo ak nin ma wóoloo ak ni ma ko mbalaxee ak ni nga ko lëmbalee mel kuy fëggati ku doon kon toogal kay ma jox la sunu teraanga àdduna tuute ca wax ndee la waaw a jaratu ngoy tabarakallah Mhm. man kontaan naa. maa la gën a kontaan de. parce que ku gis macha allah ni nga demee marché. Mhm. ni nga xool léegi ba tubaarkaala ñuy bomb. dégg nga lii léegi loo loo loo fas yéene def nii nii nii. tubaarkaala nag fa yéene bomb sama cere rek wax ko waroo <laughs> mbay gay fay. Mhm. tubaarkaala nañ leen bomb cere ji. leen bomb cere waaw. gis naa nga def ay bulet. def say benn benn bulet rek tubaarkaala macha allah cere ji la ñu mën a ko waxee def sa haricot blanc. ma gis nga jël laurier bi tëmbal. jël laurier bi tëmbal ci cabaxal ci. mën naa gis soosu bomb bi. waaw xoolal soosu bomb bi. lii tubaarkàlla. nii da laa def. tubaarkàlla tubaarkàlla. tubaarkàlla nii daal laa def. Mhm. dëkk bi toj. am na koo yekkal ajaratu aminta ñan mii ci kaw. Mhm. baaxkat bi macha allah yaatal ma. Mhm. ni ma ndel xalaas defal lu la neex. waaw kenn du aminta ñan. ay ca mooy géeru jibi daraame. Ah. baax démb tey soo ko ñëw mooy géeru ki bi Dramé. aca daa bombal ma xool nag. ay. barkalla jox ko mu defal la jox ko mu defal la day kii ñaar yi day metti ci yow. waaw kañ. wuyu ko wuyu ko puusal tuuti wantaay bi. sa gànn sa ba gànn. waaw na dolli soos bi de cee soos bi. baax na de. dafa ndaw. baax na de jaxaseen loolu mu xaar tuuti mu xaar tuuti nga jaxaseen. soos bee ndaw. kon a dee la jëlal bu ndaw bële. jëlal bi xaaral tuuti mu jaxaseen. <laughs> loxo bi la xeet loxo bi la xeet yëngal bi. loxo bi loxo bi la xeeb ci yëngal bi soos bi laa xeeb. nee la tere bomb bi. waaw maanaam di ci def yu bari ay baree bari ndax tension yi. Uh-huh. ak niinaay euh, bi. Uh-huh. waa yow loolu ban conseil nga ciy jox xale yi. loolu aji ngoy dama koy wax toujours xale yi dañuy dem ndax ba yàq sax guubu cere bi. Uh-huh. cere bi ni mu war a neexee. bu tam xarit jotee. man dama nii nga def nii loolu laa bëgg su ko defee nga war ne xale yi mm-hmm. ah dëwlin ju bari ji ak tamaate ju bari ji mm-hmm. neexalul soos bi mm-hmm. tubaarkaala da nga koy def rek mu léger ndax taas yooyu dañoo bari bari tubaarkaala ak estomac yi waaw te am na nu muy demee li nga ciy def ëpp waaw mën naa metti sa estomac waaye gis nga nii nu ko yemalee rek dëwlin ji bariwul tamaate ji bariwul waaw damay gis ñii di def ay tàndarma ñii jël ay ay euh, nu mu kii bu verte bi waaye haricot bi. haricot blanc. haricot blanc bi vert bi. vert bi di ko ci bombaale. moo ñii di dagg ay res. soo foie di ko def ñii di def beurre. nee xale yi lu ne la ñuy def boole ko diw bi. lu la ñuy def. dañuy jàppante ne ñii ciy jël meew sax di ko ci bombaale. meew sax dañ ko def ak i fromage ak i fromage ak yooyu yëpp. waaw waaw day yàq gu cere. waaye cere na simple waaye. waaw gisoo suñ ñoom maam ñu ko daan doxale waaw waaw loolu rek daf ko cere kaw kaw cere kaw kaw rek rëtëmbal rëtëmbal boo lekkee ba déwén mën nga cee reer xëy mhm. boo xëyee sax boo xiifee léeg-léegi ci yoor yoor bi nga jogonal ci nga tey niin bari tamaate boo ko lekkee bëccëg du baax mhm. cere bii nag heure boo ko lekk rek nga dafa xam nga day bari bis yu mel ni tam tamxarit comme tey nii mhm. macha allah suba dangay gis ñu bari seen yi day yëngu jàbba nga gis koo xamante ni tey bu reeree tey jii nii ba pare bu xëyee suba nga gis kii naan sama tension kii naan sama bopp. Mhm. hôpital yi fees dal ak ay nit jàppa en tant que macha allah ngay artiste di porteuse de voix ñëw jàppale si ndee la muy sa doomu nday lan ngay conseillé tey ci bisu tam xarit bi xale yi ñu moytu ko ak i tamit euh, yàpp wi niin na am na graisse mhm. yépp a niin lu xale yi war a def. waaw ngoy xale yi daal li ñu war a def mooy ñu yemale rek xam nga tamit lu ëpp nag baaxul. olof dafay faral di wax naan nopp tuur te li nga xamante ne nii bu ëppee du baax ci sa santé da nga ko war a yemale ba mu yem ba nga xam ne di ci mën a lekk bu baax tubaar du la wàññi dara nga lekk ba suur nga sentir li ngay li ñu togg guubi cere ji doomu cere bi la bu dee cere njànja la mm. nga mën koo sentir bu dee cere cere cere bu forox la nga mën koo sentir waaye soo ci soo ci soobee lépp li nga li nga lépp ne xale yi moom la ñuy def seen cere yi bu ko ci defee yooyu yëpp doo mën a xàmme mu ngi noonu mën a xàmme sax guu cere bi nag te cere la macha allah dafa baax ci doomu aadama cere feer la mm. dugub feer la kon booy lekk loo xamante ne nii dafa baax ci sa yaram bul ko yàq ni ko sunu maam yi daan defee boo ko mënta def boo ci yokkee dara mu ëpp. la nga cee yokk pour neexal ko wala pour rafetal mais yéen na yem rek su yemee du la gaañ. tubaarkàlla macha allah te dina baax ci sa santé. bu yemee du la gaañ te dina baax ci sa santé. Mhm. moom la jàbba njaay mu baax mi wax. tubaarikàlla macha allah ndee la. waaw. nga invité nag tey say nawle. waaw loo si ak ñoom. tubaarkàlla macha allah aji ngoy mm. laaj nga ma lu ma sawar. Mhm. taasukat yi dama leen a jiite. ñoom ñaar rekk fi xëy si de. waaw tey moom jàpp njaay. ñëw jàpp njaay. Mhm. sama nga xam ne. bu may tàngal ndox sax su ma nee jàppakaay mu daw ma sama sama sama jaamu buur bii nag. nga xam ne pul meeree yaayam. Mhm. waaye gitaa meeree baayam. déggal lii tubaarikàlla macha allah. seen diggante yéen ñaar. awa seen soso seeri Sadio Ndiaye. Mm. kii dafa maa bëgg ba jëkkëram man lay wër. nga ni ma jëkkëram dafa maa bëgg. am fu mu ma awa dafa mel dafa nopp Sadio de. Sadio rek la gisoo ni mu reetaanee. dégg nga léegi ma yàlla ma cere ji awa yow mbaa mbaa Sadio ngi fi rek. Ngoy. Ah, day préparé Sadio. sama sang xol boobu nga xamee tibaari kàll la. sama umpaañ jooju ñu dénk sama ndijaay petit ba grand zéro nga xam ne sunu famille ku dégg ajaratu mbaa alaaji rek. bàyyi ma tax wala yaayam mu def lu baax ci sunu famille bi. yal na yàlla guddal sa fan. sama digganteeg ndee la la ak dimanche bés doxu ci daan ni laj yor loo bokk tubaab bi mu ni longtemps habitants sont des raisons ndee la gën borom xolu mondial bi waaye borom xolu grand théâtre bi waaye borom xolu màkk bi jiite ñu nag moor jàpp sama loxo mm. jébbal ma ko ak aadi tun sama jaam ba te réccuwuma dara. déedéet. ndee la tette ndee la baax ndee la gën ndee la riis. fekkoon na ma may mbappat de. Ah. waaye dafa doll ci soow mi suukar. Eh, eh. dafa ci soow mi suukar. fekk ma ma mbappat ndax calaay sa baay ci réew mi. Ah, première ay sa yaay dol na ndaanaan. Sadio Ndiaye. min ma dénk yàlla kumba fàll gaw la mi ci gàddaay ma siin ma bëtoon njaay aalima jigéen mbooray maamam baytil ma jigéen mbooray maamam kiwa yaay njekki njaay loolu laa bokk ak Sadio mi may sëyal xanaa lii neex na kon bu ma bëggee saajo war na calaa xool suñu cin waaw dem solu ji nag waajale yàq bi delloo ci dangeen di delloo kiyaat tayaat ni nga bombee ba pare jarul tayaat kon na kon li ñuy def kon mooy bàyyi suñu cin muy baax bàyyi suñu cin rek muy baax ñu dem solo ji ñu dem defar ba mu baax préparé parce que tàllal tànk yi rek taaja booni taaja booni rek ba fan ah, ngir ci Aminata Ñang laay njëkkee borom gi ma ah. Ah. ci moom laay njëkkee waaw man xam nga lu ma naa dee waaye ma dem ba fa ba fajaa sama yaay da dañu woon moom kër yaay may mën a nduur fay la jëm. sama yaay dañu woon moom kër yaay may mën a nduur fay la jëm. doom jooju tubaarkàlla ki nga xam ne wuñu naxee mbaay bëgg yaayam bëgg mbokk yaayam nag bëgg ku takk ci yaayam tubaarkàlla macha allah lii ko yàlla jox day sedd guy ci moom mhm. parce que lekk ko bàyyi benn boo demee taxaw gu ma ko télé ba waaye ku fa xam naa ko hmm. macha allah ku mbokkal rek yaa ngi ci biir dëgg la ndax dimbali la dimbali sa ndey dëgg la te loolu lépp ndeyam la dimbali dëgg la waay ndax ku mag gërëm sa ndey mbaa nga xarab jugu saar sama waa ji tubaarkàlla macha allah yàlla ñu jéggale suñu lépp rek <laughs> bu eh. dee mayee barke kenn du la yërëm may mun a teeral sa la may mun bu dee mayee barke kenn du la yërëm may mun a teeral sa ndey ñëwal bu dee mayee barke kenn du la yërëm may mun a nuur xoolal def leen ko nag ni ko yàlla def mu yéen mu noppal leen ana se faltama mu ngeen ko deful ni ko yàlla def mu jaaxal leen des na la teral ba nga tedd te dara du yëngu. Eh, fi la juddoo fi la màggee fi eh, des na la tubaarkàlla may mun a a nduur mbasa mbasa macha allah ba dem solo ji nag defar ba mu baax ñëw tàllal jàkkaarloog ñoom yaay foofu nga teg nag sa foofu nag nga nga mujje falaay dem ak yow bu ñu solo ba pare ci may mun a nduur fay ndax bëri na ay secret yooyu ñu wax wax ko ci tubaar tubaarkàlla wax ko ci baayam wax ko itam ci maamam ju baax ji macha allah kon nag kebe macha allah waaw tubaarkàlla moo nu jàngal moo nu jàngal naka la ñuy jëlee xaalis ndeysaan ndeysaan kon nag ñu dem solo ji nin ma taamoo nin ma seetloo ak jàmm ji ci man ak yar gi ci man kay ma jox la suma teraanga àdduna duute cappe duute cappe duute cappe tey nag moom fii mokk na maa la wax li yaa ngi lii macha allah bëgg fas yéene tam nii daal nga ko defee ci bis bi. rek ci bisu tam bi. mbaax boo paree doo tëdd nelaw sa make-up baax na. damay taaja boon. sa kanam baax na. dëkk bi bu ko defee dañuy ànd de xanaa. dañuy ànd dem. dem fan ak fan. xanaa nag nag ca Mor Fall Mor Thiam Géwél. nga ni ma. am nga idole am nga référence Mor Thiam Géwél. tubaarkal la ngeen gis nag macha allah li ñu def tey ci bisu tam xarit bi muy bis boo xamante ni. dañ naan ñun suñu weer ñun jullit yi suñu at ñun jullit yi suñu commencement at ñuy ñaan yàlla dugg ci bisimilah rahmaani rahim waaye àggale ko alhamdulilah rabil alamina ndeela macha allah léegi lu des xanaa yekk rek waa lii moom fer de te te te baar te ajjana yi xam nga moom moom tamit nag ma waxee ak niñ ko lëmbalee walay walay walay deela walay walay walay walay waay walay walay walay walay walay walay walay walay walay walay bombal cere ji ndela bombal cere ji wayi taaja boon taaja booni naar farma targuya ibrahima targuya fatmatama targuya ndela bomb na cere ji cere jaa ngi nii cere ji am na laalo yaa ngi nii jaali bomb nan cere ji taasukat bu mag bi bomb na cere ndeela xalaas yaayu faatu xalaas bomb na cere ni mu bombee cere ji awa ndeela xalaas ni mu bombee cere ji cere ji spécial na taasukat bu mag bi bomb na cere ji waay ndeela xalaas waay bomb na cere faatu ma targuya ibrahima targuya fatmata ma targuya taajab woon taajab woon defoon nan ko daaw fekkee dee baaxal boo defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal ndeel la cere ji ndeel xalaas bombu na cere ji ndeel xalaas bombal cere ji ndeel cere ji am na ndawal dara bombu na cere moo cere am na yombu eh bombal cere bilaay cere am na eh, carotte eh, dee la xalaat bombal cere am na nawe am na supame e bombal cere ji naar yi sax dan koo roof bilaay nee la xalaas bomb na cere ji nee la lakk na pëcc mi bomb na cere ji lakk na pëcc mi bomb na cere ji na cere maam ma dem ba saakan mbaay yee eh, eh, njin borom melal laa wax waawaaw mag ji ba mu na jara ji yee eh, awa seen sosoo nga ne leen mandeeti nan te sunu mandee dañuy réew mandeeti nan mandeeti nan te sunu mandee dañuy bomb jara ji mandeeti nan waa ku aya tey damay ku aya waa réew mi ku aya tey ku baax a xoolal ci rajo nu mu maan noog ni nu bomb ko bomb ba mu neex kenn du nu tere ndeela xalaas sama waay yow la nuy bégal xoolal ku aya man damay laaj ku aya yóbboon Abdou Jàmbaar ñaari malaaka la ci mu ni la yaay ji ndagam julli mu ni la diyee mu ni la baay bi ndagam julli mu ni la diyee diyet cara na lii eh, e cara ji na lii way way way way mandeeti nan sunu mandee dañuy réew mandeeti nan waa Ndéla yaa dëkk kuul waay Ndéla yaa dëkk kuul waay Ndéla yaa dëkk kuul waay Ndéla yaa dëkk kuul waay Ndéla yaa dëkk kuul Ndéla yaa dëkk kuul Ndéla Ndéla yomb ni xol bu aay mënu ko bo nee jafit xol war war loxo ni basang ni rat daj dani ixi dama koy dagg danu koy dagg yaa ko gën a woon tarkal la léegi nag mën nañoo reer nag tubaarkàlla macha allah foofu toj ngoy waaw sama waa mbootaay tubaarkàlla bëgg ndeel a xalaas bëgg faat seen ñang miy toog ah, tubaarkàlla macha allah mm. ñu def suñu leket goo xam ne rek tubaarkàlla mm-hmm. xam nga rek jigéen ñuy góorgóorlu di foraat di ca def Ndoye. Hmm. dama laa dénk leget gi. tubaarkàlla kontaan naa dama ku seet si leget gi. waaw tubaarkàlla legetu ndee la xalaas. waaw war nañ dañ koy seet si. non dañuy ñëw incha allah bu soobee yàlla acca ñu reer kon. macha allah ci bisu tam xarit bi yàlla may ñu fekke de wàcce wàcce leen. cere ji neex na am na ambiance waaye man li ma mënta muñ mooy ti naa ay mbay lii mbaa jàmm la tam <laughs> ay bu ñu mandee dañuy lan dañuy réew ah, waaye du jàmm lii waay lii daal moom moom tubaarikàlla waaw euh, ginnaaw nag bañ santee yàlla ndeysaan cere ji neex na lépp neex na waaye man damay ñëw ak yow rek ci foo xamante ni fu sensible lay doon ci yow waaye nag lu dëkk bi soxla la muy sa diggante ak nday jaara dañoo gis bi mu demee àjjana ak léegi ndeel la nekkatul ci lu baree baree bare nday jaara salan la ak lu tax mu demee àjjana ak léegi ndeel a xaw mel ni ku tënku daal. dëgg la waaw asalaamaaleykum waa ba ma santee yàlla julli ci yonent bi ñaanal sama ñaari waajur ya ca àjjana kal ngoy dangaa laal fu doy wax laaj ma nag ca ndundung ma seen ma ca guy paar daam ma ca kare tubaar kàlla mu nekkoon nag sama mag nekk nag ku ma sekkuroon lu ngeen bokk mooy sama taawu yaay ñoo bokk benn ndey mooy sama taawu yaay tubaar kàlla doon ma ñimeloo am na ci suñu biiri taasu dama ko daan wax yaa ma dugal géej jox ma gaal wan ma ni may nappe tubaarkàlla musuma wane man-man ci kanamam déedéet moom toujours na jiitu rek ma topp ci ginnaawam muy sama mag boo boo ñu gisee ñun ñaar da ngay defee ni eh, danuy dañuy dañuy diwoo te pourtant de loolu de day taasu ma doon ko aw waaye dafa xëccoowu ak man dara bu ñu nekkee plateau danaa ma njëkk la taasu njëkk la wax ma ne ko ah di yow laay aw mu nu la wax rek ma topp ci yow loolu mag ju la ko defal mag ju la diglu la te it macha allah danoo mës a déggoo moom mosuloo xëccoo dara bu ñuy répété man maay xool la ma neex ma ne ko day jaara lii la ñuy wax mu ne ma acca lu xëccook ay rakkam dara tubaarkàlla bu nu toogee fii ba nëga ma ngay xemes ma ci jung moo ñu indi woon ndakaaru suñu taawu yaay jàppale nu sekkuru nu kon ngoy bu ma dëddoo wan ma ginnaaw dem àjjana lu bari dina wàññeeku ci man ndax ñu bari dañ naan ndeel xalaas foo nekk mm-hmm. ndeel a xalaas kenn déggatu la nangam nangam man leen li ma tënk ku mu tënk nga toog. Mm. day jaar géey dafa nekkoon ku ma dimbali. may nekk nag ku ma am may fit nag lu ma mas danaa eh, yow eh, def lii ñëwal def laa waaye ba ma wanee ginnaaw ba léegi tubaarkàlla eh, mu mitti lool nag. Mm-hmm. na ko yàlla yërëm. ma di xaar rek samay rongoñ fer sama xol dal ama daal dellu rek la woon fa woon ndax barki démb nee naa ko day jaari géey li nga fi bawoon ba léegi mi ngi fi tabarkàlla macha allah manaa ko wunte nga ndundum ma seen ma ca duy paar daam ma ca ndey jaare géey lay lay jooy ndeysaan macha allah da doon sama wéttal mhm. nekkoon nag ku ma dimbali mhm. ma defee ne woon bu demee mhm. tubaarkaala man dee la xalaat dootuma nekkati waaye nag laf cap saa njéemé njas maamul caam nga bàttal bi daan ko dumbay ah. jëleel man ngay tagg wala kan sama mag gi toog laay tagg ko dañoo bokk maam ndéngu ma ri ngoone bi te jaay maar ma ca mbijjëm maar maa dem saagaan mbaay jii nag borom belal tubaarkaala yaay roqee juuf mi toog mm. ah, yaay sama caat ma ca kër ga laaw la cat ba ma nekkee moom ba léegi jooyu ma nday historien bu mag bi waaw historien bu mag la nag ndeysaan loolu moom ko yàlla la ko tax a wax te bis boo dajee moom wax di nga xam ne historien la incha allah tubaarkàlla muy bawal bawal pire ndeysaan di kajoor nag ak bawal macha allah laaw la cat moom nag dinañ dinañ la dagg tuuti mhm. comme li ñu dese ci ay heure bariwul waaw ñu jox ko micro rek Euh, mu demal ndax nag tubaarkàlla mhm. ku tax nga gën ñi nga àndal danga koy jox cër te it sab sanga dëgg la te ku ma maasal jamono rek may mën a nduur fayee tax ma gën la ginnaaw sama ndey ak sama mu teg ma nag ci télém bi tubaarkàlla mhm. la 7TV la télé que nous ressemble et nous ressemble télé bi ñuy nduru ba noppi te duñu dajale eh. tubaarkàlla kon sànq boo waxee ci may lu daw yaram wax ko ci way juram tubaarkàlla dinaa ko ci laaj mhm. ndax tubaarkàlla macha allah sama patron kat du tuuti nit ci réew mi. déedéet. mbokkum ndeyu président Abdou Diouf tubaarkàlla foofu rek laa bëgg nga laalal ma fa yaay. tubaarkàlla macha allah salaamaaleykum maa ngi nuyu senegal gépp di nuyu ñëpp nag nuyu samay bokk di sant yàlla julli ci yonent bu tedd ba ca Medina di sant sama ñaari waajur di jaar nag fi ndee la jaar léegi ci adaratu ndey jaar gi mi ni jooyte noppeegunu mooy suñu taawu ndey moo ñu indi woon fii ci dëkk bi bu ñu xamee dakaar moom la ndax te tabaarikàlla suñuy baay amoon na teraanga ca dakaar ca xombal mu jël ñu indi ñu Dakar kenn ku nekk mu bëgg sa teraanga ku ne mën defal li nax nga am dara te loolu yombul yàlla may la teraanga ci biir nga bëgg koo bokkal mu ñëw wut ko am ko bariwul waaye loolu la ñu defal nag ba tax bu ñu manee faj fii gàcce ginnaaw yàlla moom la di ko ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jóge te yàlla teg loxoom ci njabootam. jàppal leen boppam tabaarikàlla macha allah jàngooy may kontaan ci yow tabaarikàlla ku bëgg sa nawle nga macha allah li daal sama rakk yi nag seen diggante ak ndee la mu yaw a seen di jàbb di ndeela mi tabaarikàlla aj bëgg ndee lu mu yëngal nga ànd ko ci ak moom tey sama rakk dama koy ñaanal yàlla ma yokk nee naa ko bu yokkoo ma yokk ba ñëpp yëg ko ndax dencalu ma dara te jox na ma cër li ma dàqal ndax tabaarikàlla macha allah li muy def bariwul sax lu ma ci nit di gis ndax nag kenn ku ne yàlla may na foo féete li nga wax léegi historien laa bu mag la macha allah laaw la cat gudd fa nag wér rek laa ci nam waaye na mu ma ci leneen muy sama rakk nag te xoolu ci loolu dara lu dul jox ma cër nungu la xam nungu la def lu ma ko ne defal mu def lu ma ko ne bàyyi mu bàyyi te loolu doy na cër ku la ko jox moytoo ko fay dencalu ma dara ba nagani si ñi dangaa wax ci koo xam soo waxee mu am naa ci lu ma ci mën a wax. Mhm. may mën a dur fay sama taaw boobu bariwul boobu ñu ñaan ci yàlla mu bari te sakkan macha allah bi ñu ñëwee fii aji ngoy ci ndakaaru kër lañ njëkk a dëkk Mbañik Sarr ba dëkkee këram ak ndey jaara sama mag booba ndee la ñëwagu fi mi ngi ngaay maamam dañu dañoo luye woon ca këram ba mboole ko lu teral bu nu mësoon a xëy bu ñu ko déggee muy ñëw bu nu fekkee ñu taas day nëbbu fourne ba. daal di wut luñ ca muur. Mbagnick Sarr. Adam Sarr di ma di maama bu jigéen. bu ñu nee tël rek ak costume yaa xaalis ba dañuy day daal di ne waaw sama doom yi da ngeen a taalu añ ñu ne ko bàyyi Mbagnick ñun taal ndax ñun xam nga ay géwél lañu. te géwél yi boo bu fekkee ni bii rek wayaanoo doo toog loolu la géwél yi wax mu ne nga ne lan waay waay waay géwél la ñi may yàlla ñii bu ñuy dee di lakk lii la seen jëkkër yi wax ma ne ko billaay loolu la suñu jëkkër yi wax Sarr bu ko dee mu làmpoo booba kat booba ku ñu wàññi ñeenti téeméer jox sa loxo di nga dugg loo bëgg a dugg dem leen marché duggi ñu daw wiir wiir rek seew ba desiwaat ci kër gi <laughs> léeg-léeg bu daan ñëw te yëguñu ko sax taawam bu jigéen bu baax ba di Émilie Émilie naan papa baa ngi ñëw de da ngeen taal daw leen nëbb seen dugg ñu daw nëbb seen dugg kon kooku su sëtam demee bay def lu baax faraatiwu ko maamam milaasam jeexagul ci Grand Yoff te baari kàll borom titre foncier yu bari yi bàyyi gantu saar suma càmmeñ loolu ñu xàmmee lool doon na baax ci ndey doon na ko ci baay Hélène Sarr ma yaayam lycée yaayam tabaarikàlla macha allah jugu saar mi yaayam ku mu bokkal dimbali na te boolewul dara ak wax. lu muy jëf lu baax la koy jëfe ndax it nag mënoo gërëm ndey di bàyyi doom de mënoo gërëm doomit di bàyyi ndey ndax doom def ci lu baax dafa neex ndeyam te ndeyam lu baax rek la bëgg may mën a teleem boobee defe naa ay tubaar kàlla boo génne woon ay bokkam kenn du fa des indi na fa nag ay nit ñuy liggéey waaye indi na fa ay bokkam kenn ku nekk bokk na ak yow tabaarikàlla li mu bokk ak ay bokkam téye na ko lépp ndeyam la jugu saar man ba ma jàppee ba tey bàyyiwu ma yaayam ba tey jii barki Demba Ndiaye la ma woon ndeyale parce que ma ànd moom ñu ndeyale ko mu yóbbu lu bari tabaarikàlla kon may mu na sama doom jooju moom ku ne xam na ne nag Abdou Diouf ay mbokkam président Abdou Diouf waaw ndax li tax Abdoulaye président Abdoulaye Diouf di Abdou Diouf di di di mbokkam. macha allah Elisabeth mi nga xam ni mooy moo moo doon moo doon soxnaam moo bokk ak Adam Sarr maamam bi jur ndeyam lu ñu am ca Grand Yoff ñoo ko moom. gisul foncier yi bari lañ fa xamul bàyyi bañ daan wax sama doom yi xaw ma lu tax ñëwul leen may maye parcelles yi fii bu ngeen ñëwoon ma may leen te boo may ne ñëpp ba ku nekk dëkk. ah waaw waaw. tubaarikàlla may ma na. namul daray baax. sama doom jooju boolewul dara ak wax. lu mu amul tey dana ko am ëllëg ndax dafa fonk ndeyam. dafa fonk ndeyam dafa jàpp ndeyam bëggul ndeyam jooy di ko ñaanal yàlla rek yàlla yokk ba mu yëg ko may ko wér may ko yaayam nag mu fekkee lépp ak mbooleem ku mu bokkal ndax mën naa ne askan wi ñu bokk ñépp a baax tabaarikàlla macha allah la ko dala ci Émilie mi nga xam mooy taaw ba ci caat kenn ku ci nekk lu baax nga xam ndax ci lañu juddu seen yaay dama ko doon xool muy mag moo xam dund na ba génn àdduna yàlla na toll ni moom fan kenn gisu ko ci dara yaa Adam Sarr kenn gisu ko ci dara lu dul yiw noppi yaru day mag ba nii mu génn àdduna waa la macha allah. Mhm. sunu yaay ju baax ci dégg nga mu wax ci may Maimouna Ndour Faye ndeysaan man nag sama patron bi tubaarikàlla macha allah loolu ma ko wax mhm. man moom dinaa ko ci defal teraanga ju am solo bu neexee yàlla te dinaa ko yónnee ndax man nee naa leen ku la tax a gën say maas tubaarikàlla macha allah Ndella waaw yaa ngi studio wala yaa ngi pare dala mhm. en tant que présidente taasukat yi waaw ñu teg la ci seen kanam da ngeen di waaj wala yéen ngi tubaarkàlla macha allah. man dama naa man ñi ma yor ay taasu log laa yor. barki Dembo Ndiaye defal nañu alaaji Alassane Mbaye morso bu doy waar. yóbbul leen ko drapeau bi. tubaarkàlla macha allah muy morso bu neex. lañ defal eh, alaaji Alassane Mbaye dafa baax. barki Dembo Ndiaye ci anniversaire am bi. te ñoo ngi waaj guddi. Mm. macha allah nee naa leen ñun. Eh, du ñu yem Sorano grand théâtre lañ. dëgg la. nekk xale yu baax nag ndax nii nu def wane na ko macha allah démb laa leen woo bii ci guddi. Mm-hmm. bi ma leen di woo min wi jot na. wallaay dëgg la waaye tubaarkaa la ñu bàyyi seen i itte. Mm-hmm. bàyyi soxla ñu wuy si ma. Mm-hmm. leen a na leen yàlla fay. amiin yaa rabbi tubaarkaa la sama waa mbootaay gi. ñu ngi nii ci suba laa leen woo. dëgg la ñoom ñëpp ñu dagg wuy si ma. kon man la xalaat dama naan aw ma noonu. parce que Serigne Bamba. la mu ngi waaj anniversaire. wala waaj dem Grand Théâtre wala Sorano. ngi waajal lu rëy ngoy mm. ndax tabarkalla yow soo ma bàyyiwul. Hmm. ah a def. loolu duma la bàyyi yow tamit. waaye may gërëm nag sama càmmiñ lii. ndeysaan ndeysaan waaw. tabarkalla bàyyi góor mi. Hmm. Seex Faal Jeng kii lu ma tëgg lu ne maa moom la dégg nga léegi bi ma nee jàmbal. bi ma nee jàmbal rek dégg nga foofu ma tontoo. Hmm. ndax moo ko tëgg moo tëgg morso bi. dëgg la lu ma def man ak ndey jaare géey ba gi moo koy def ba léegi fii ma toog nii su may répété dama war a bàyyi góor kaay nangam lii de laa wax baax na. Mhm. mu ne ma boo waxoon lii moom mooy gën. dëgg la te loola laay wax. ndeysaan barke Serigne Touba bu nekk ñàkk ñaan. Mhm. ànd ak sama doom ji toog ji bi doomi ndigal macha allah. sama mhm. doom ji nga xam ne du ma leen woo ñu naan ma ñaata. mbaa ñu naan ma nangam dañuy daw wuy si ma. yàlla na yàlla guddal seen fan. amiin yaa rabbal aalamiin kontaan laa. macha sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj xam nga ma koy def. dama naa duma ko xeex xeexu guurub lu tax.

lépp Mor lu tax Mor bu leen ko def xeexu góor bu lu tax lu tax Mor feexu benn nit lanu koy def Mor Thiam dugg ci koog ñoom bàyyi nga dagg da ngay kowe bàyyi naa dagg di daan lay lay le laa Cheikh Tanga man sama waa ji des na la si gaay sa yaay mbakum ndayum jatu njaay maram la bokkal yaay ni réew mi doo ñaaw Pape Cheikh a seen seng seng mooy sa maam seng seng mooy sa maam boo koy yakkal Cheikh waay borom 7TV ndoy yaay géwal géwal géwal gi nga doon yaay doomi géwal doomi géwal géwal géwal gi nga doon yaay doomi waay ngoy bay yaay doomi géwal géwal géwal gi nga doon yaay doomi géwal eh, mooy doomi géwal géwal géwal gi nga doon yaay doomi géwal ngoy xam nga doomi géwal bu jëfee mu mat lii la yàlla def waay yéen waay ngooy neex na leenam laay ni kenn bañu ko ngooy mbay neex na leenam waay sa tiifi neex na leenam ngooy yaa doon baax war a baax e yaa doon baax war baax ngooy yaa doon baax war baax xoolal sa yaay li yaay na nga yow la woo soo déggatee baax yaay na nga gëstu ee eh, mandeeti naa te su ma mandee damay réew mandeeti su ma mandee damay réew Boy Mbaye yaayu Ngoré moom laay waxal ñu xoolal buuri géwél bi ci mi kenn damul ba ko Boy sa jalgal bari na dala dala rooxut ba nga mel ni paaram dosaanaa la sa kisa wuru su nga aram wi nga namp kenn mënu te waaye la bañal kenn du la xumtoo saf nga Sénégal ah Ngoy